Votre réaction après cette décision Bon, ma réaction, doit être compréhensible. je suis très déçu. Déçu pour des raisons. La première raison est que ma conviction est que la Cour suprême ne pouvait pas aujourd'hui juger cette affaire. Elle devait renvoyer devant le Conseil constitutionnel. Mais enfin, elle a décidé autrement en disant que le mémoire est serré tardif et que par voie de conséquence, donc il est déclaré irrecevable. Euh, deuxièmement, tout le monde a suivi les réquisitions du ministère public. Et ces réquisitions tendaient à la cassation, même totale, de tout l'arrêt, pour des manquements graves à la loi. Parce que tout ce qui a été développé, c'était des moyens de pur droit. La Cour de cassation, donc euh, la Cour suprême s'est débrouillée bon, pour rejeter un à un euh, tous les moyens et a accepté un seul moyen qui en réalité euh, n'avait aucun intérêt, aucun intérêt pour Ousmane et pour ses avocats. C'est en fait euh, sur la contrainte par corps. Donc en définitif, la Cour a confirmé ce que la Cour d'appel avait rendu comme décision et a seulement dit que les dommages et intérêts alloués à Mambaïna et les frais de procédure, n'est-ce pas, ne pouvaient pas être recouverts par la voie de la contrainte par corps, donc un emprisonnement de deux ans. C'est cela euh, la contrainte par corps lorsque la somme dépasse en fait un million. Donc c'est cela la décision qui est surprenante. Alors, en dehors de cela, euh, il est clair que nous ne baisserons pas les bras. Depuis des années, nous avons effectivement été confrontés à des décisions très surprenantes, n'est-ce pas, qui de nos analyses était désarticulé et ne correspondait pas en fait à ce qui devait pouvoir être. Nous sommes aussi dans un contexte, un contexte et un virage. Parce que si la décision n'était pas rendue aujourd'hui, rien ne pouvait empêcher Ousmane Sonko d'être candidat à l'élection présidentielle. Nous sommes aujourd'hui le cinq Dans les calculs, il restait en réalité seulement 15 jours. Or, la, le Conseil constitutionnel saisi aurait rendu sa décision dans un mois. Donc vous comprenez l'enjeu. Et là, chacun en tirera les conséquences et je pense que tout cela, euh, l'État qui en fait est la cheville ouvrière de tout cela, qui en fait a violé toutes les lois, à violer tous les engagements internationaux, à renier l'état de droit et la démocratie, à changer les valeurs, même culturelles, euh, dans ce pays, c'est un État qui est prêt à tout. Maintenant, se battre contre un État qui a tous les moyens financiers, politiques, policiers, etc., ce n'est pas facile. Mais ce qui est important, c'est que Ousmane Sonko a gagné devant l'opinion publique nationale, a gagné devant l'opinion publique internationale et l'histoire retiendra qu'il s'agit d'un, qu'il un complot d'État qui a réussi à l'affaiblir. Mais il ne tombera pas. ce qu'il reste à faire? Ce qu'il reste à faire, c'est que nous continuerons le combat. Aujourd'hui, on peut en fait aller en en hâte, en besogne. Et dire que compte tenu du fait que la loi électorale dit que toute personne condamnée pour un délit de trois mois euh, avec sursis à six mois avec sursis, n'est-ce pas, entre dans un cas d'inéligibilité. Alors là, on tire une conclusion active. Mais moi, je reste un juriste. Si en fait la loi électorale le dit, ce n'est pas automatique, parce qu'il y a l'article 34 du Code pénal qui dit que les cas d'incapacité, en cas de délit, la juridiction, c'est la juridiction de jugement qui en fait la prononce ou bien l'en dispense. Et je convoque l'histoire. Dans l'affaire Karim Maïsawad, le procureur général, le procureur de la CREI avait requis qu'il soit condamné à une peine d'incapacité civique. Et dans la décision, si vous la prenez, vous verrez que la CREI a rejeté cette demande en disant que non, nous refusons de retirer en fait les droits civiques à Karim Wade. Cela veut dire que ce sera un c'est un débat encore qui reste d'actualité. ci wolof maître ci wolof ci wolof maître ci wolof. tënkal ñu ko rek maître. tënkal ñu ko tënkal ñu ko te bon léegi ci. wala mel mu tuuti. yaakaar naa ne que décision bi ñu rendre tas na yaakaar yi tas na yaakaar yi wante jeexalul sunu doole. li mu tasee yaakaar moom moo di que xamee ne ñun. nañ ko gisee woon ak kii nga xam ne que moom moo représenté société bi muy avocat général bi dégg nga wane nañu ne que dañoo jalgati yoon et que atte bi dañ ko war a nasaxaayal dañ ko war a maanaam dindi euh, ba ñu demee yàgg nañu lool lam-laame mooy délibéré dellu si ba ñu dellu si la ñu waxoon yëpp àttekat yi dañ koo teggi jël ko sànni ko fële kon bokk ñu jàpp ñu dëggal la nga xam ne loolu lañu ñu woon ci maanaam cour d'appel de Dakar léegi nag euh, lii nga xam ne que war nañ ko mën a retenir moom moo di que buur dafa bari doole buur xeex ak moom yombul buur yàlla rek moo ko mën a freiner wante nag sabab bi du yàlla moo koy def doomu aadama yi ñoom ñoo def sabab bi ñu ngi koy def yegg nañu ba fii kenn yaakaaruloon ne que xeex bi dina àgg ba fii ngeen jàpp rek garde espoir nekk ba tey jii maanaam xeex bi nga xam ne que sumb nañ ko sunu borom bi kattanal ñu ñu taxaw ba toll fii xeex boobu dafay wéy bu nit ñi nekk maanaam mënul nekk candidat ci ndax atte bi foofu foog naa ne gaawantu la lu tax gaawantu la gaawantu la parce que ñoom yaa xamoon nañ ne que dossier euh, Adji Sarr boobu maanaam tàbbi géej et que dossier bi ci lañ war a mën a langaamu te lii bu fekkee ne que ko fii ak fukki fan ak juróom booba day fekk Ousmane Sonko raw na leen définitivement léegi atte nañ ko ba su fukk ak juróom yi yegguñu fa wante su fekkee nekk dañoo wax ci code électoral nekk koo xam ne que tëj nañ juróom benn weer te juróom diggante ñetti weer ak juróom benn weer yoo xam ne ko tëddoo ko dégg nga munoo nekk nan la tuddati ak électeur moom moo di que mënul ñu la bind ci fichier électoral yi dégg nga à partir de sa moment déterminé ñoom li leer moom moo di que dañ koy jéem wante gis nañ ne que bien que waxoon nañ leen nit ñi bind dañoo lànk ba tey jii dañ ne que duñ ju ci delloo kon kooku dafa mel ni que bu fekkoon ne que dañu bëggoon mbéj day nga wala ñu xosiñu day nga daanaka dañ ñoo raay ndax loolu moom miin nañ ko miis nañ ko te loolu terewul ñuy dox ba fii léegi nag loolu loolu loolu bu ñu yaakaaree ne acte bi bu ñu ko jëlee yóbbu ko conseil constitutionnel day tax conseil constitutionnel maanaam nekk Ousmane du nekk candidat yombewul noonu yoon waxul loolu yoon dafa nekk bu fekkee ne que crime la maanaam comme li nga xam ne que euh, euh, ñi kuréel bi atte Adji Sarr moom moo ko atte ñooñu buñ la daane ak daan boo xam ne que daan nañ la mënatoo nan la tuddati euh, nekk bokk ci élection mm. wante bu fekkee nag maanaam daan yii comme daan yi nga xam ne moom la ñu daan euh, Ousmane Sonko foofa yoon dafa nekk ka nga xam ne mooy atte moom mooy dogal nekk kii dootul mënati maanaam nekk candidat ci élection te loolu it mënul weesu nan la tuddati juróomi at yoon dafa tënk sax foofu juge bi waru koo mun a weesu dégg nga alors que bële ba ci fukki at mun na fa dem kon ñu jàpp ne bu fekkee nekk dañu bëgg langaamu ci loolu ba tey ji bu ñu yaakaaree nekk dañoo jàpp nañu xam ne que musóor bu ñu jàpp la musóor bi des seen loxo wante terewul borom musóor baa ngi dox soxlaam kon boog jàpp leen ne que wax ji jeexagul combat bi jeexagul te it ba tey ji ñu ngi ak seen i doole ñu ngi wéy ak seen doole wante jaam ak pexem yàlla ak dogalam jërëjëf maire ñu jël ko El Malick on prend directement la nga ñëw avancé tuuti avancé tuuti avancé tuuti avancé tuuti maître day xaar il faut ñu gérer el el ñëwal tuuti s'il vous plaît